aduna ci yeb di ci ndokel itam mbar rew mi yeb euh di nuyu euh jital ci nuyo bi ak ndokel bi الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام لطائف المريدية حفظه الله ورعاه وأيده ونصره دي نيو سيرين محفوظ ميغا خامني موي خليفة سخنا سي di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa yàlla sàmm ko wattu ko ba mu eggale ak mbébét yëpp ci daraje shahru ramadan mubarak li nuyu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ni mooy jëwriñu kër gi eh, di ko siyaare bu baax a baax te di ko ndokkeel ci bis bi eh, di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawe bis bi Euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ni ñu ko waxee rek sànq bis bi moom ñaari tomb rek la waaye di ñaari tomb yu am solo bu njëkk bi mooy jëmmi laylatul xadr nga xam ne moom aw turam rek turu turu tur woowu ñu ko tuddee rek wane na dimension wane na moom euh, ni mu toll ndax yàllaa ko ko tuddee kenn ko moo ko tuddee laylatul qadr guddi gu am daraja guddi gu am solo di guddi goo xam ne sunu borom bari na lu mu ciy dogal ci biir guddi googu xam ne bari na loo xam ne doomu aadama euh, ci mbiram yëpp ci guddi googu bu dikkee sunu borom subhaanahu wa ci la koy dogal muy guddi goo xam ne lii sababu Euh, yàlla jox ko xeetu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gisoon ne xeetam bi seen fan dafa guddut ni xeet yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon xeet yi ko jiitu woon dañ daan am fan yu gudd lool ñii di am juróomi téeméeri at ñii di am juróom benn téeméeri at ñii di am sax ba ay junni at waaye mu gis ne xeetam wi moom Euh, seenu fan taxu leen a gudd te fan wu gudd dafa am solo lool ndax ci nga mën a liggéeyalee yàlla lu bari ci nga mën a defee lu bari loo xam ne dalay amal njariñ amal njariñ diine ji amal njariñ xeet wi mu xemme moon nag loolu ci aw xeetam suñu borom subhaanahu wa euh, jox ko laylatul xadr ne ko loolu yi ngay xemme mu ngi ci biir laylatul xadr daal di koy wax ne ko laylatul qadri xayrun min alfi shahr guddi la goo xam ne am na wàccuwaayu junniy weer junniy weer boo ko seetee juróom-ñaar fukki at yu tegal la juróom-ñaar fukki at yoo xam ne nit jaamu na ko yàlla bu laylatul xadar dikkee nit jaamu ca yàlla suñu boroom jox ko yoolu juróom-ñaar fukki at yooyu te tegal kon loola moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon ba moo taxoon mu doon xemmem euh, laylatul euh, xemmem seenu fan wu gudd suñu borom defal ko ci loolu muy guddi koo xam ne it muy anniversaire u alxuraan mën nañoo wax ne ani alxuraan ci guddi googu la ko yàlla wàcc euh, muy lu am solo si ndax alxuraan mooy li nga xam ne mooy téere yàlla bi nga xam ne ci la moom la wàccee eh, rëdd ci mboolem loo xam ne bëgg na doomu aadama yi di ko doxalee seen àdduna ak seen diine ba àdduna yi tukki lépp loo xam ne si yàlla soxla na ko rek wala mu bëgg ko rek wala mu digle ko def na ko ci téere boobu eh, moo tax guddi googu mooy anniversaire u alxuraan moom ak Kazu Rajab dañoo bëgg dañoo bokk ay mbir kee mooy anniversaire julli kii mooy anniversaire u alxuraan muy lu am solo loo xam ne jullit yi euh, bu ñu ko xamoon danañ ko gën a fonk ndax lislaam bu ñu koy wax alxuraan a tax ñu di ko wax lislaam bu ñu koy tagg moom mooy téere bi nga xam ne euh, moo indi loo xam ne téere yi fi jëkkoon jiitu ko fi indi na ko indi li nga xam ne moom lañ tollool tey jii indi itam li nga xam ne mooy ñëw ëllëg waaw almaadi wal xaadir wal mustaqbal mboolem yooyu yëpp alxuraan da koo làmboo kon ci guddi googu la ko suñu borom subhaanahu wa taala wàcce ci asamaan si di ko wàcce nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mat ñaar fukkiyaat ak ñett loolu nag daal di nekk loo xam ne lépp loo xam ne suñu borom bëgg na ko rek wax na ko ci biir téere boobu te loolu lépp mi ngi ko wàcce ci genn guddi gii nga xam ne mooy laylatul xadr muy guddi koo xam ne eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko réyaloon lool te fonk ko ndax dafa daan wax soxna Aïcha radiallahu anhu ne ko eh, mooy guddi gi nga xam ne lépp lu ci nit ñaan suñu borom subhaanahu wa taala da koy nangu Aïcha laaj ko ne ko waaw guddi googu bu dikkee man lu may wax eh, allahumma innaka afuwun mu ne ko del wax allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna mu ne ko loolu nga ci wax yàlla yaay ki nga xam ne ab jégalaakoon nga teyit dangaa bëgg képp koo xam ne nit nga ngay jéggale kon nag maa ngi lay ñaan nga jégal ma mu ne ko loolu daal nit mënut a wax lu gën baat yooyu ci bisub laylatul qadr waaw ndax doomu aadama li nga xam ne moo koy gàllankoor lépp mooy bàkkaaram bàkkaar mooy jëng bi nga xam ne waxtu ko nit amee rek dina bari lu mu war a fam fu mu waroon a egg te du fa egg ci wàllu yàlla ndax bàkkaar saa bu ko nit amee te yàlla jégalu ko dana tee mu jàng alxuraan am na bàkkaar yoo xam ne day tee jàng nga xam ne boo ko amee da bëgg a jàng sax te doo ko am na bàkkaar yoo xam ne day tee nga julli boo bëggoon a julli sax day mel ni dala tënk doo ko man am na bàkkaar yoo xam ne day tee nga fab sa alal di ko joxe yooyu yëpp moo tax ñu ne bàkkaar moom mooy problème mooy li nga xam ne bu ko nit fexee ba suñu borom dugut séqati ko suñu borom rek fu mu mën a fu mu bëgg egg rek mën na faa waaye saa soo xamee ne bàkkaar am na rek doomu aadama am na lu ko gàllankoor moo tax yonent bi tànn euh, ak njëggal ñaan yàlla ak njëgal ci guddi googu nga xam ne lu ci nit ñaan yàlla boo ko ñaanee sunu borom subhaanahu wa taala dana la ko may wax ne tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlai alfajr malaaka yi sunu borom da di yabal ñu wàcc fii ci kaw suuf ànd ak sidna jibril mu jiite leen من ماي روح متهمون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لو خم نقل مولن كدقل نواتي كوسوف دي وخ نتني سلام عليكم وحنا ني كونيو داجل دانين لكو وخ كر دوغ دانين كفو وخ لدول ريك كر خم ني لو ملني خيتي ملايين خم ني dañu koy bañ mu lu mel ni li ñuy tuddee mbaam xuux euh, wala lu mel ni li ñuy tuddee kalbu walla ñaari nit ñoo xam ne dañoo jubadikoo te te defaroowuñ ci seen diggante ñoo ñooñu rek yooyu rek ñoo ci dul bokk kër goo xam ne loolu am na fa duñ fa dugg waaye gépp kër goo xam ne itam ña fa nekk am na lu dox seen diggante ci xeeti ñàkk a juboo te juboowuñu ñoom bu laylatul xadar dikkee bokk nañ ci ñi nga xam ne malaaka yi duñ jaar ci ñoom duñ dugg ci seen kër te duñ wax ak ñoom dara kon loolu itam day wane ne guddi la goo xam ne bu dikkee war nañ cee fexe ba nit ñi jubawutoon nit ñi nga xamante ne dafa am lu doxoon seen diggante ñu fexe ba rafetoo ñu fexe ba kenn ku nekk defaroo ak sa moroom ñiy defare itam bis boobu dikkee mu nekk occasion boo xam ne dañuy defare nit ñi ndax gannaaw euh, xéewal gu rëy googu ci am Euh, ñu jubawul ñu ne ñoom duñ ca bokk kon fexe ba nit ñi juboo guddi googu occasion la ci euh, loolu nag mooy continuer ba ba ñuy julli fajar xéewal yooyu yëpp day wàcc ci doomu aadama yi ba ba julli fajar kon guddi gu màgg la guddi gu tedd la goo xam ne bu dikkee bëgg nañu ñu fonk ko lool sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu fonkoon na guddi gi lool way na ci lu bare bare bare bari na xasaayit yu mu ci def yoo xam ne xëy na jataay bi dafay xaw a xat ba duñ ko mën a détaillé indi ko noonu waaye nag <clears throat> lu bare bare bari la euh, kon loolu moo waraloon euh, soxna si sëñ bi fonkal ko boppam euh, ndax sëñ Tuubaa dafa fonkoon fonk koor fonk Euh, bisu guddig laylatul xadar ñetti yëf yi moom sëñ Tuubaa fonkoon na ko lool alquran euh, koor ak laylatul xadar alquran moom kenn ku ne gis na ni mu ko fonkee woon euh, fu ne wax na fa ne alquran mooy sama diine alquran mooy suma xarit alquran mooy sama wéttal alxuraan moo ma teg ci yoonu siraatul mustaqim ba li ma am lépp ma am ko waaw kitaabu ko diini wa huwa xilli wa munisi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi sabba kon foofu la tegoon alxuraan nee na lim am lépp alxuraan ak ko may fi mu egg ci yàlla fépp ci alxuraan la jaar ba sunu borom subhaanahu wa may ko ko kon guddi gi nga xam ne ci la alxuraan wàcce moo taxoon sëriñ bi jox ko euh, fonk ko lool réyal ko lool woy ci lu ne wax ci lu ne loolu it moo tax euh, soxna su tedd si naa egg guñ foofu euh, loolu kon mooy ci gàttal rek dama ko gàttal rek dama ko résumé waaye guddi gën naa yaatu loolu ma wax ci yi nga xam ne moo ci gën a am solo rek kon bu dikkee mooy guddi gi nga xam ne bu dikkee lu ci waay man ci jàng alxuraan lu ci waay man ci saraxe lu ci way man ci jokk bok ci lu ci way man ci taxaw ñi nga xam ne dañoo néew doole euh ni ngeen ko waxé rek danaka ma sha allah li gënon am solo lépp ci laylatul qadr andi ngeen ko bay Cheikh nim ko ëndé ma sha allah def na ci bass bu yaatu bo xamné wax na ci yu bare bare yo xamné ne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 bu la gisee daan na lay fab teg la foo xam ne yow sax da ngay dem ba boo xawee ñàkkam xel danga nga naan man xanaa daal léegi damaa xamul sama bopp waaye fii ma soxna si sek ah, nangam ak nangam te loolu lépp ak baaxam ak fonk doomu aadama ak fonk taalibi Sëñ Tuubaa rek moo taxoon yàlla defal ko loolu e, mu doonoon koo xam ne it taxawaayam da ngay dem ba jàpp kii nag bii taxawaay daawuñ ko xam ci jigéen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 fexe na ba jàng koy am fa mboolem yi nga xam ne mooy tax nit avancé jëm këram yëpp boo ko xoolee ci soxna May danga koy gis ba moo tax dafa nekkoon koo xam ne référence la ci ñi nga xam ne dañuy woote mbirum jigéen di ko woote noo xam ne day mel ni ñoom dañuy xeex ngir am seeni aq soxna si moom da leen bëggoon a woon ne ay aq desu ko xeex des koy liggéey ba am ko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 rawatina jigéen ñi woote ne xawma ma féministe la ñuy wax xaw ma lan émancipation loolu dañ koo war a wëlbatiku nafar ku mel ni soxna May soxna May ku ñu war di nafar la ku ñu war di jàngaat la rawatina ci sénération bii ñu toll léegi nga xam ne dafa dem ba nga xam ne nit ñi dañoo réer xamatuñu fu njëm xamatuñu fuñ jógee xamatuñu fuñ jëm kon loolu dafa laaj nag bu dikkee. ku mel ni moom dafa jaroon ñuy def ay séminaire sax ci moom di xoolaat ay doxinam siira zaatiyam bi nga xamee moom la doon doxee loolu lépp ñu fexe ba xam ko jàngal ko xale yu ndaw yi nga xamante ne ñooy door a jóg ba ñu xam ko ndax loolu moo nu manqué li nu manqué suñu jamono ji mooy ñu mel ni moom ñoo xam ne mën ngaa wone seen euh, du du ay wax rek da ngay mën a teg loxo ci seen i jëf ku ne teg sa loxo ci li nga xamante ne moom la jëf loolu maa ngi fàttaliku laylatul xadar bii rek benn bis boo xam ne damaa ñëw fii sama kër gi ma am fii jàkkaarloog moom yàlla dafa dogal ma demoon ba jamono ñëw ma di ko bëgg a soppandiko bëgg koo jaay te waxuma ko kenn ma ñëw fii di ko ziyaare si di ko tàggu itam di war a dem umra maag sëñ maag sëñ Modou nii ñoo àndoon Eh, bi ma dikkee tàgg ko ne ko man de damay bëgg a umra ji xam naa bis bi moom foofa la may fekk mu daal di may ne ah waa Moustapha da nga am kër fii ma ne ko waa am naa fi kër de waaye defaraguma ko mu ne ko mu ne ma na ko defar defar ko damaa bëgg dëkk ak te yéen moom da ngeen a fonk alxuraan lool te man damaa bëgg a dëkk ak alxuraan doo ko jaay ma ne ko déedéet te fekk booba de waxaale naa ba juboo waaw waxaale naa ba juboo ba nga xam ne moom fay rek ci des loolee moo waral tey jii sama kër gi jaayuma ko ngir wax boobee mu ma wax ne ma dama bëgg dëkk ak alxuraan loolee lu rëy ci man la loo xam ne du du du ko fàtte mukk ci àdduna moo tax def naa fi daara alxuraan joo xam ne soxna may mun a laa ko tuddee ba tey itam ba ñuy dem mu ne ma euh, foofee de danañ fay taxawal laylatul xadr ci Makka ak ci Jidda damaa bëgg boo demee yàgg sëñ Jiili Mbàkke moom sëñ Fàllu yéen laa ko teg seen loxo bu ngeen demee ngeen taxawu ko nga xam ne bu ñu masaan dem ca consulat ba booba sëñ Abdou Mbàkke ambassadeur mii moo fa nekk consul bu ñu demee sëñ Jiili moo koy taxaw nekkal ko fa man ma yor wàllu waxtaan wa ak ci ci laylatu xadar mboolem ñi fa nekk ñëpp te di sénégalais danañ dikk ci kër ga màggal guddi gi loola diirub man dama fay dem ñi ngi koy def bu ma delsee itam danaa delsiwaat ci moom waaye boo egsee li muy njëkk a bëggee bokk ci mbégteem lool xanaa bu ma ko nettalee dafa xew ba noppi mu ne ma a ah, xanaa loolu de moom ñi ko am bariwul de ma ne ko yow rek yaa ko am waaw dama dama dem ba am daayira boo xam ne daa nekk ci wetu ku baax kookee ñu di ko màggalal laylatul xadar foofee xanaa loolu de ñi ko am bëriwul ma ne ko yow rek yaa ko am kenn ama ko ku dul yow di am ab ba ci wetu sallallahu alayhi wa sallam loolu de mbàkk yow dong am yaa ko am di ko defal laylatul xadar foofee mu bëgg lool loolu lépp ci liggéey lislaam rek taxoon mu di ko def loolu lépp itam liggéeyal Cheikhul Xadim moom képp moo taxoon mu di ko def yar mbooloo mu bari lool di jigéen di góor yoo xam ne kenn ku ci nekk yar na la ci lislaam